salaamaaleykum sëñ bi moom ñoo ab laajam mooy ndax nit ki sëñ na nangu ak njëbal aj ko ci sëriñ bi wax na nangu naa ko ngir sëñ bi wala yu dem noonu loolu de moom <laughs> damaa xamul dëgg-dëgg daal lim ci jublu dëgg-dëgg waaye njëbal moom mooy jaayante rek jaayante nag ni ko xamee rek lu am ci laay la ci diine yonente bi sallallahu alayhi wa moom lañ daa jaayanteel ci jamono yam fi ne eh, aaya itam wàcc na ci ay aaya yu bare bare sax inna allazina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allah eh, laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubaayi'unaka taxta shajara ba ci jaayante gi sax léeg-léeg dañu jàpp ne kóllëre la goo xam ne yàlla nga ko fasanteel moo tax ay wàcc wax ci kóllëre googu it bari na wa awfu bi ahdillahi ida ahadtum wala tanqudu laymaana baada tawkiidiha ak wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula ci sunu yonent bi tam dinañ gis ne xeeti eh, jaayante googu it na yonent bi daan wax ne baayi'uuni ala tushriku billahi shay'an xadis yu mel noonu bari na daal jaayante naag mag ñi jaayante naag jigéen ñi jaayante sax ay gone daa mel ne eh, sallallahu alayhi wa sallam na leen itam talqin na leen jaayante naag ay benn benn nit it jaayante moom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa kon jaayante moom eh, lu am ci ci diine eh, saxaaba yi dañ daa jaayante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci topp ko topp ndigal bàyyi tere ginnaaw yonent bi tam ñuy jaayanteeg saxaaba yi waaye yoonu jaayante woowu nag dafa mujj maanaam am ay eh, maanaam xam nga ni ko xamee rek ginnaaw yonent bi dafa mujj ñi doon ay buur di buuri àdduna nga ne mbirum diine ak mbirum baatin gi teqaliko ak mbirum saahir ci niñ ko mën a waxe loolu moo indi nag nit yàlla yi eh, nga xam ne dañoo xam dañoo boole xam-xamu zaahir ak xam-xamu baatin te mooy xam eh, mboolem àttey sariya yi kooku mooy sëriñ sëriñ mu xam mboolem àttey sariya maanaam mu am xam-xamu sariya dooga am na xam-xamu xaqi dara lu may xam-xam mbiri xol yi mbiri xol yi ak la ci aju am na nu ko borom xam yi waxee yaakaar naa jarut du laaj bi waaye li ma bëgg wax mooy mooy ab sëriñ am na nu muy mel noo xam ni ki ñu jaayanteel du koo jug rek jaayanteeg moom Sëriñ Tuubaa wax na ca majmuwa ba wax ne sëriñ ñett la sëriñ bi nga xam ne dafay jàngale kese te mu wax ci ñetti sart faaw mu kooki mu am xam-xam bu leer bu tegu ci alxuraan ak sunna faaw mu am làmmiñ wu ko ko mën a joxe itam faaw mu am xel mu xel mu mu mu leer itam te lëng te te xel mu xel mu baax daal moo xam ni dana mën a ràññatle lënti lënti xam-xam yi ndax texte yi dañuy mën a eh, léeg jaxasoo ci kanam kii xool nga yaakaar ne fii la wàcc fekk lële ci lële la bëgg a wax boole kooku ak ragal yàlla ak set eh, ak maandu yu demee noonu daal kooku mooy sëriñ bi jàngale sëriñu tërbiya nag sëñ waxoon na ca moom it yu bare bari faw mu xam jëmmi nit ñi xammee nit ñi xam kenn ku ne li li koy jagal ak li nga xam ne mooy ay manque-manque am loolu nag anamuk tajriba ci la ko xamee maanaam yàgg jànkonte ni nga xam ne noonu la ab sàmm di xamee ak jur baykat di ko xamee suuf noonu la sëriñ bi war a xamee moom noonu la sëriñ bi sax di xamee nit xamee nit ñi kenn ku ñëw bu toogee yow rek mën a xam ci lu bare bari nekk noonu itam mu xam jamono ak yi xew ci jamono ak àtte mboolem yi xew ci sariya lan la ci àtte loolu ci anamuk nassan wa tajribatan wa mushahadatan wa tahqiqan itam loolu sëñ bi wax na ko wax na itam ñetteel bi mooy mu xam tasarruf maarifatu tasarruf fi dalika wa tasrifihi maanaam mbir mu ne itam mu xam naka la cay doxale mbir mu ne fam ko war a teg mu teg ko noonu te bañ a ëppal bañ a yeesal ànd ak sàmm gu mat sëkk ak dëggu ak euh, dëddu gu mat sëkk adduna boole kook ngëm gu wër boole kook ak manam bayyi lepp luma yalla nga xam xolam yalla kesse mo koy dekk ak eh, teggin yu mat sekk mi ngok te amonu serign nak momit it loolu la wax amoon ab serign mom serignu terbiya ki dee terbiya faaw mom mo am ku ko terbiya ak ken tërbiya ko koku mënta terbiya kenen wala bok bu terbiya mën na joom ci ay mbir waaw nak nag tarqiya mom mo ci top koku mu yombut yombut ah, sëñ bi wax na ko ne moom it am nañ màndarga mooy foo ko gisee gis ko day yokk jëf day yokk pas-pas day yokk pas-pas day yokk pastéef day yëkkati sa mooy eh, waxam day am day day yëkkati sa xaal yëkkati sa pas-pas dolli la pastéef dolli la pas-pas eh, ñetteel ba mooy jaxasoog moom it day day day day day yëngal leer yi nga xam ne moo ne ci sa biir te mooy leeri ruux maanaam jaxasoog moom daal day sulli leeru xol day leeral xol day jeqi leeri xol yi nga xam ne mu ngi bawoo ca ruux gi yooyu yëpp nag sëñ bi wax na lu ci ne lan mooy eh, tegtalam lan mooy eh, cëslaayam ci sariya ak ci alxuraan ak sunu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee ci maj ma kon kooku daal mooy ki ñu war a àndal cib sëriñ Eh, bu dee sëriñ bi jàngale moom dalay jox xam-xam rek bu la neexee jafe bu la neexee bàyyi bu dee sëriñ bi tërbiye nag kooku moom moo lay tegtal yoonu yàlla bi nga xam ne mooy may ngërëmul yàlla nga xam ne dala ci tërbiye moom it fekk na mu xam mm, anam gi nga xam ne noonu la tërbiya ñetteel bi nag mooy sëriñ bu baax boo xam ne moom gis ko rek day defar mbir day yokk xaal eh, day tax a baax am na ñoo xam ne gis leen rek yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ne am na ñoo xam ne foo leen gisee sa xel sa xel dem ci yàlla waaw foo leen gisee rek sa xel dem ci yàlla ñooñee nag mooy ñi ñu tudde siyooxu tarqiya léegi nag kon eh, kon yaakaar na laaj bi leer na jaayante ci ñooñu lañ koy defal eh, ki nga jaayante daal na nekk koo xam ne ku baax la ku adduna génn ci moom Sëñ Tuubaa waxoon na ne koo gis yitteem di gën a kawe nit ñi ak bëgg àdduna ak uh, ak rëy kooku bul jaayanteeg moom waaw wa kullu man raayta yastaalin abid min al mashaayixi fa daahu ya murid waxtabiri rijaala qabla suxba wala tusaaxib xumuran aw daa raxba loolu suñu wax na ko yaakaar naa loolu na ko doyloo bu dee nag sayduna Muusa ak sayduna Xudar moom ñoom la seen ànd boobee bokkut ak jaayante gi ñu def moom bokkuñu dara sax wax dëgg yàlla loolu des koy tegtaloo rek aayar yooyu dañ koy tegtaloo ak di ko wéttalikoo rek ci jaayante gi ci def ko tegtal ci jaayante gi waaye nag bokkuñu dara nag ndax sayduna Muusa ku mat la ab yonent la te sayduna Xudar moom ñu ngi warante sax ndax yonent la war a déet am nañu jàpp ne du yonent loolu mooy li ëpp ci borom xam yi sax loolu lañ jàpp. kon ànd googu mu ànd ak moom dees koy tegtaloo ci ki ngay àndal ci yoon yàlla ak teggin yi ngay ànd moom maanaam yonente yi lañuy ñuy def noonu jàngale lañ ci jublu jàngale rek lañ jublu waaye kenn du ko sax eh, jëmmal ci seen maanaam kenn du leen ko maanaam doo kenn ñi mu waru ko tudde sax ak jëbbalu loolu wala yasubillah bu fekkee wax naa ko fenn nit maa ngi koy tubal seen borom tabaraka wa taala <laughs> jërë ngeen jëf ji sekku laaw xeyran